mbokk yi borom naaru góor si na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina Ousmane Ndiaye borom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina usmaan Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor Seydina Ousmane Ndiaye mi ngi leen di yëgal ni naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 sukkaay kenn gënu ko nee na wax dëgg yàlla nee na jooyul doom de jooyul goro de nee na ay goro la am de nee na ay doom la am nee na nanguwuñu yëkkati benn bant dañuy xëy xool ci samay bët dañuy yëkkati dañuy xool ci ay bëtam rek ñu doxal liggéey bépp maa ngi leen di sant yaay bi nee na mi ngi leen di sant di leen di leen ñaanal yàlla bàyyi leen ak seen jëkkër ngeen fekke lépp yàlla barkeel seen yàlla barkeel seen njaboot ci barke Seydina Mohamed nee di seen ngeen di seen ngeen téye waa nee na jërëjëf jaara boot nee na ñu ngi jërëm ajara de ajara sa yaay nee na gërëm na la sant yaay biri nee na amul sa fay yàlla même fay yàlla la yàlla fay ñu ngi ñëw ci yow waa ñu doxal liggéey bi tuuti nee na lii eh, mami ana kii bi mami may lañu tuuti rek jabaram moo aji jabaram Mamadou nee na aji jabaram Mamadou nee na dafa am doom temps yi moo tax moo joxe dara laaw la ca jabaram Mamadou aji jëlal moo joxe dara jéegu maanu bi macha allah ci ajara jabaru Mamadou jàpp jëlal yaay nee na tegal la ñaar fukki junni ñaari junni ñeenti junni juróom benn junni juróom ñetti junni cinquante mille fukki junni ak ñaar fukki junni ñeent fukk ak juróom benn fukk juróom ñett ñaar fukki junni ci ay bili booy ak gorom yu àndal nee na bu loolu weesoo nee na Mamadou ak fameem nee na Mamadou ak fameem lépp luñ fi indi dañ koo xeeb de nee na Mamadou moo ko tegal ñaar fukki junni Mamadou ak fameem bi yaay bili jàllee Momadou ak famille ñaari junni ñeenti junni juróom benn junni juróom ñetti junni cinquante mille fukki junni ñaar fukk ak juróom benn fukk ak juróom ak famille ñaar fukki junni yaay bili wax rek la ma Momadou wax ak famille li yaay bili wax ak gorom yi baax yi Momadou ak famille loolu lañ wax ak di sant rek ak di sant ak di gërëm ak di xeeb lool nag nee na xeeb nañ ko de nee na ko nee na nañ ko lool bu ñu amoon ay conteneur waaw nee na raqam ji moo teg ñaari junni xadi raqam ji taxaw moo teg ñaari junni ñëwal

teye ajaata cofu ko te yow mi yaayam yàq ko si dara waaw dëgg tey man bu ma xamee ajara yàlla ak ñoom gabi maire bi bi ma koy xam fekk maa ngi gën a tuuti tey mën naa ñu fa sëy si ñëpp ñun ñoo leen accueillir Eva duma bàyyi ma fen comprendre tey ñu jox ma ajara présenté ma ajara dénk ma ajara oh. depuis lors sama bët bu xonkee ajara du yendal du fanaanal comprendre papa day toog du toog weer te yëkkul téléphone am woo ma yaayam ngi nii duma bàyyi ma fen moo ngi nii lu ma sama jour bi may ñàkkee sama baay ñoom laa fa njëkk a gis oh. comprendre nga bi mu ko yëgee tamit la déplacé wu donk gis nga tey même ma aw ma waajur bu góor awma ma waay mais tey jooyu ma leen jooyu ma leen nit du alal du luñ lay jox du du parce que dara jomb ma borom karaw bu ñuul la mais yëg nit dafa metti Aïdara lu mu metti metti lu mu guddi guddi daf ma si fekk man dara mu ma Eva ngi nii Eva ngi nii lu xaalis bu nekk jaar na sama loxo mais du loolu gis nga yëg nit loolooy doomu aadama loolooy doomu aadama te lii dafa neex tey muy maman tey muy am naa ñaari famille am naa ñaari famille tey fu ma duggee chaque jour mu ne ma naa yëkkati samay bagage ñëw kër ga dëkk maman moo ñi nii maman Penda à chaque fois du doog oh. ana sama doom gi siyaara donc tey jooyu ma yaay jooyu ma papa te loolu yëpp dama koy sante dama leen koy sante tey ajara tamit depuis ma xam ko mi mee ngi ni dara ñaawul dara ñaawul bu doon man sama jikko rek man xam naa ni banama bu yàgg mais bi ma ko dénkee par tey dara ñaawul tey bu may toog jullit laa de mais parfois yi fu xale yàpp mu ne ma siyaar ak loo mënti def jëlal tapi nga julli loo yàkkamti yàkkamti jëlal tapi nga julli oh. kooku bëggalu la lu bon ñi ma yàgg naa am ay xarit ku ma xam-xam na mi bi may dugg milieu milieu dafa metti mais Ajara woowu ma kaa ñu dem foowi woowu ma kaay ñu dem à chaque fois bu ma kiiwee siara demal nga julli boo jaaxlee demal nga julli boo jaaxlee demal si say waajur jamono loolu amul Eva ngi nii du ma bàyyi ma fen gis na ku nekk ànd nag moom ku nekk tey tey démb bu doon tey bari bëri duñu bokk sama àdduna mais ñii oh. dinañ si bokk kii di Eva kii di dinañ si bokk Mimi daf ma rakkam lu mu métti métti bu ma ko waxee bàyyil mu bàyyi loolu nag du sama alal du sama doole du sama tax du sama dara yàlla la ak ñoom ñii donc nag maa ngi leen di gërëm di leen sant mënu ma leen fay yàlla yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla kenn du ko fàtte fàtte amu fi fàtte fàttaloo fi am te jamono ji ñu toll jamono jii ñu toll laa la wax de fàtte amu fi fàtte fàttaloo fi am ndax tubaarkàlla am na ñoo xamante ne nii bu ñu baree baax yàlla nga koy jaarale si nit bu ñu waree bon nit yàlla nga koy jaarale si nit waaye ajara nii ak jëmm jii nga wax tubaarkàlla ñu dugal la si yoonu saraatal mustaqim nga nangu nag waaw nga nangu gi nga boo nangoo dara du la jomb boo nangoo dara du la jomb ndax fii kenn du wañ sa loxo bi jël ko dugal ko cib taal loo bëgg a def yaa ko bëgg a def waaye boo gisee ñu baax di ànd ak ñoom da ngay wëlbati ku baax te jamono jii ñu toll ku baaxul nag pett nga ndax jamono jii ñu toll jamono jii kenn du waxal kenn nag loo xamante ne nii xamoo ko xam nga boo waxul woon lii du ma wax benn yoon la ñu gisee benn yoon la ñu gisee nga wax lii si jëmm ji ak sama yaay ji kon yow lii nga wax nga jooy dëggu la si yow ndax xale day neex a wàññi xale day neex a wàññi waaw. e xoolal e kaata fayu kaata fayu kaata fayu ku la masa e eh, xool ma nday ju nii la war nday ju nii la war waaye bu leen di sonal biir du mel nii lem e joojo fajul joojo mer mu yàlla na fii dagar na xalaa mandiir baajo ani ñu ko bëgg ani suñu goro tàccu leen lii nday ju baax nii la war mel macha allah yàlla yàlla fi cap bul jooy am na benn sincère fidèle. nee na kon boppam génne àdduna. nee na ko jëlal sa bagage ñëw ci kër gi. waaye daal fekk nekkal frère am bu na ko toogal. bëgg ay mboqam lool. moo ci gën a nekk te moo ci gën a nekk xale. macha allah yàlla yàlla cat. macha macha allah. seen ànd bi kon nar a yàq yàlla nga góo. nii rek avis. avis. yàlla na yàlla may boobaa boobaa yaay demiti te dina ñëw de <laughs> léegi léegi rek boobaa demiti de boobaa yàlla na yàlla fi lay la la waaw maam xadi ñaa ak xadi dañoo bañ a yàq xew mi. ne dañoo a yàq xew mi ne ko mu ko jox cent mille mu jënd si boisson mu woon. waaw ami billaay ay xaritam la woon bàyyi suñu doom ju ja ca àjjana wallaahi yàgg na wallaahi tubaarkàlla kooku tubaarkàlla macha allah buñ ko tuddee xol yi day tooy waaye looloo neex suñu borom ndax yàlla lu mu def bu ñëwoon jël kër gi yëpp nag loo ci man dara waaye sant yàlla rek ba mu ko jëlee ci ndaw yàlla na yeggale ndawam àllaaxira ci barke yaa rasulalaay saamin ma waaw cim Ousmane yaay biri sama sama nday jaagi gem lii mooy yéene sama doom ci man la jëm sama doom ji lu mu naar baataare xale bi lu mu naar e eh, xale bi lu mu naar e eh, xale bi lu mu naar e xool ma aka teeral ndayam yee aka sigil ndayam e nee e xool ma lay lay la laa e xoolal e aawa yaay ñaareel tanta e aa ñaareel tanta ñaareel tanta ñaareel tanta xoolal lay tàccu leen nii ah. man e da nalaw yeewu leen boog eh, ku mer ci ku waaj mer ci ku ñu dagg sa si ñu nga ree ree force la ree dañuy ree ree waa xarit lii benn la wax duma ci tegaat leneen ndax koo liggéeyukaay mu yàgg lool muy jël ay projet yu bari di ci xaalis weex di ko jox Adja tubaarkalla kon nag tubaarkalla yaayam ji amuñu payam du nu fi nekk di ko njukkal yaayam bëgg ko mel ni doomam yaayam bëgg ko lu mu jur ci biiram lay nirool kon dañuy ñaan yàlla ànd bi yàlla na yàgg ta sax ma ñeenti junni sama xarit ñaari junni paasam ñaari junni géwalam ndaw bu yorootee ndaw bu bari am jom te yaayam liggéey lu mu am jom bu ko ndaw bu te bari am jom te yaayam liggéey lu am jom